carotte bi nag mooy ñu jox leen am ngeen yéey ci seen xol mën a sedd ñëpp nekk ci jàmm mais su fekkee nag da ngeen di bëgg a téye carotte bi di ko xàmp te doo leen def li nga xam ne moom lañu mën a dañu indi yat te danañ leen dóor te comme ni mu ko waxee woon sànq fi ñu leen di dóoree xam nañ ko yëpp mooy di impôts parce que mane la fii nii rares sont les entreprises yi nga xamante ne yore la ñu nguur nguur nag am yore la ay entreprise ça c'est vrai nguur yore na ay entreprise xaalis yu bari loolu du ma ko mais itam entreprise yu ci bari yoroon nañ nguur seen i donc pour man pour mbir mi mën a dëppoo ak euh, ku ci nekk gis si boppam dëppoo ak yoon ku ci nekk gis si boppam nañu nañu na ku ci nekk rek jéem a takk sa biir jéem a rek parce que c'est dans c'est sax dans l'intérêt du pays c'est sax dans l'intérêt du sénégalais mmh. euh, des sénégalais plutôt te képp koo gis fi nous tous nous sommes des consommateurs il faut le dire industriel bi itam c'est un consommateur mmh. président d'entreprise bi euh, c'est un c'est un consommateur day lekk day naan donc ki nga xamante ne moom day lekk di naan mënoo koo wax ne waroo waroo waroo def lii parce que wàññite boobu tamit ci intérêt la parce que moom itam c'est un c'est un consommateur mais tamit dafa am na loo xamante ni moom da ko daal di gën a ndax soo soo dukkee sa xaalis am foo ko dugal soo sañoon itam la nga xamante ni moom nga ciy am dana nekk loo xamante ni dana dana dana dana baax ci yow mais pour man daal pour mbir mi bañ a bañ a enflé wu rek ngir yàlla nañu waxtaan xoolaat mesures yi su fekkee ne sax dañuy reporter li nga xam ne moom moo di applica applica applicabilité ci euh, wàllu mburu mi ak farine bi mais nañ ko def parce que parce que jàpp naa ne yeneen yeneen yeneen produit yi moom mhm. euh, amul amul amul yeneen produit mburu bi ak farine bi kese moo am moo am problème bi Ousmane Sonko war a amal li nga xam ni moom moo di euh, sa déclaration de politique générale en tout cas waa assemblée nationale moom jamono ji ñu ngi koy mhm. xaar bu baax a baax te ni ki le 30 bi bu weesoo dina rek daal di nekk quelqu'un boo xam ni en tout cas ñenn dañuy jàpp ñu dafa jalgati yoon parce que app bi foofu la te ba tey euh, dégguñu Ousmane Sonko mu àddu wala mu yéey yàbbi jëme ci mbir boobu noonu le euh, mhm. même vendredi bi sax suma ma yaakaar naa ni euh, ki nga xam ni moo yore finance ak budget bi moom moo fa war a dem foofu la ci assemblée nationale kon yaakaar naa que ni Ousmane Sonko bon comme ni ñu ko waxee rek déclaration de politique générale bi fi mu ne nii Sénégal xuma la sax assemblée nationale mais député yu bare bari ñu ngi koy xaar ngir mu ñëw daal di koy. amal mais ba léegi tekk tekkaaral gi euh, lan nga jàpp ni moom moo ko waral ba ba léegi yeyul yàbbi ci. moom Ousmane Sonko il prend son temps. day jël son temps ba temps bi nara nara jeex. man personnellement je lui je lui déconseille cela. mu dem foofu. Euh, non je lui pas pas mu dem foofu noonu parce que il, est obligé de le faire. Mm-hmm. ah daf ko def parce que déjà pour man euh, pour donner une bonne image de lui et du leadership qu'il incarne pour man bañ ko falee ba mu def une semaine ba mu def deux semaines. ba mu la waroon jug bind waa assemblée ne dinaa ñëw def sama déclaration de politique générale parce que pour man su defoon déclaration de politique générale dana wàcc coono ju bari jëmee ci ki nga xam ne moo di le président Bassirou Diomaye Faye parce que actuellement ñi nga xam ne ñoo war a tirer ci le président Bassirou Diomaye Faye mais il tire premier ministre Ousmane Sonko alors que moom tout ce qu'il fait c'est de coordonner l'action du gouvernement donc c'est c'est c'est ça c'est ça euh, li ñu ko dee sax moom mooy euh, doxalin ki nga xam ne moom mooy le premier ministre Ousmane Sonko maintenant nag il ne l'a pas fait jusqu'à euh, une date boo xamante ne quand même c'est une date butoir donc daanaka accès nañ ci ci li nga xam ne moom la yoon daal di wax donc ñi nga xam ne moo di député yi nekk assemblée nationale su leen neexee bind je sais pas conseil constitutionnel wala autre li ñu ko dee sax autre juridiction bi ma gën a mag je pense que c'est le conseil constitutionnel su leen neexee ñoom ñu bind conseil constitutionnel wax ko ne ki nga xam ne moo di premier ministre Ousmane Sonko app bi nga xamante ne moom la ko yoon Ousmane May pour mu ñëw def déclaration de politique générale app boobu noon wees na te suñu xoolee ci ni assemblée bindoo donc suñu tollee yenn date yi assemblée day jël congé maanaam dañuy dañuy dem euh, dañuy dem noppalu daanaka lu toll ci ñaar jàpp ñetti weer après ñu koy daal di ñu daal di tijjiwaat te loolu seetlu nañ ne fii ak le 30 du mën a du mën a wees te nee nañu Ousmane Sonko vers mois de juin bi waru ci génn deful déclaration de politique générale noonu la su ko deful dañuy dàpp ne dafa xëtt yoon te maa ngi déglu te ci suba koo xamante ne xam-xamam màcc na ci wàllum yoon mi wax naan euh, assemblée nationale soo waree def sa déclaration de politique générale wala ngeen ko yëgal euh, juróom-ñaari fan laata ngay ñëw waaw sept jours avant donc ñu xoolee tey le vingt quatre donc je peux dire qu'il reste six jours mhm. avant la fin du mois mhm. donc est-ce que Ousmane Sonko dana mën a def déclaration de politique générale am ci euh, ci biir mois de juin bi Mhm. je sais pas parce que dem euh, borom xam-xam yi ñooy wax comme que ñun suñu xam-xam euh, màccul trop ci wàllu woom parce que on est juste dans dans dans dans dans les faits attendons de voir tamit am na benn parade boo xam ne am na ci biir yoon boo xam ne nee nañ peut-être danañ wax ci wala danañ ñu expliquer ne moom ci biir semaine bi su ko neexee. Mhm. def euh, benn déclaration wala def benn préavis yoo xam ne dana yëgal assemblée dana ñëwam du ñëw. donc mhm. loolu ñoo ngi xaar xam ne moom lay daal def mais pour man personnellement ko ba léegi fii ak vendredi Ousmane Sonko na dem def déclaration de politique générale parce que pour man su ko defee rek mooy jéggi na lépp li nga xamante ne moom lañ doon xaar parce que Ousmane Sonko c'est un ancien député donc xam na assemblée maîtrisé na assemblée la fa nekk xam na ko la koy xaar xam na ko peut li nga xam ne moom moo changé mooy moom il n'est plus un opposant maintenant c'est un chef de gouvernement moom moo nekk ci ci boppu pour jéem a daaneel gouvernement bi nga xamante ne moom la fi teg pour man nekkul loo xamante ne tey war na koo daal di déranger. parce que moom euh, député yi nga xamante ne ñoom la ñu bokkaloon coalition def nañ ko Amadou Ba donte ne les euh, données yi nekkul les les mêmes parce que euh, ja jamono jooju ñooñu benn boo ko yaakaar moo nekkoon majorité assemblée te seen premier ministre. premier ministre seen gouvernement moom warul ñëw cette fois ci nag c'est contraire euh, ki ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci opposition bi jamono ji ñoom ñoo nekk ci gouvernement bi donc ils ne sont pas majoritaires à l'Assemblée nationale mm-hmm. donc peut-être mën nañ jàpp ne motion de censure bi su jàllee dana nekk benn tâche euh, euh, ci gouvernement bi quand parce que tamit du du neex parce que Sénégal tamit motion de censure moom pour mu jàll c'était c'était tout un mm-hmm. en 2012 Abdoul Mbaye ñëwoon na assemblée nationale PDS moo nekkoon majorité. Mhm. majorité écrasante la amoon assemblée. Mhm. mais defuñu motion de censure. Mhm. ñoom am nañ posture républicaine. donc loolu la xaar ci ñi nga xam ne ñun ñooy euh, député yi nga xam ne ñoo nekk ci assemblée nationale te jamono ji majorité nañ te gëwuma ne sax ne majorité ñoo am majorité man gëw personnellement gëwuma loolu. instant bii nii jàpp nga ni. Ah. yow xar na nañ ci ñëw si dafa xar en deux déjà. <laughs> mais mais xam nga xam nga instant bii nii. Euh, ah mais dañuy wax dëgg tey suñu suñu ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci opposition bi. Mhm. jamono ji ñoom ils ne s'opposent pas wala ils ne vont pas s'opposer soo doon xoolee ñoom presque man nañ 83. ah man dañ 83 di ak ñi nga xam ne ñoo ngi biir Benno te li njiit li fi nekkoon doon def ànduñ si ñoom soo leen ci CP donc léegi ñan ñan ñooy ñan ñooy député yi nga xam ne ñoom ñoo war def motion de censure ñan lañ. moo ma jaaxal. non nañ ci ñëwaat donc pour man. xam nga le premier ministre mhm. Ousmane Sonko vraiment euh, man li ma yaakamte mooy mu def vraiment dem defi déclaration de politique générale te bu mu may ñi nga xam ne ñoom ñooy ay noonam entre guillemets am foo xam ne foofu la ñuy mën a jaaree daal pour wax la nga xam ne daal euh, dana xaw am benn légitimité bu bu ndaw kaa ndax nag vraiment euh, man j'aimerais pas qu'on dise que premier ministre dafa xëtt yoon mhm. pour man mhm. loolu nekk loo xamante ne daal ay militants sax danañ danañ ko nangoo dégg parce que nit ki nekkee xam dafa jéggi yoon wala dafa loo xamante ne dëppoowut ak yoon vraiment euh, su boobaa di ko bëgg loolu la défendre mais tamit défendre daa am foo xam ne foofu lay daal di yem. lay yem voilà mhm. vraiment man je suis pour mu def def déclaration de politique générale ci app wi nga xamante ne moom la ko yoon way parce que man je je mesure mes paroles damay wax ci li nga xam ne moom laa moom laa maîtriser moom laa xam tant que app wi weesuwul tant que app bi nga xam ne moom la ko yoon wees may weesuwul pour mu dem def DPGM su nekkee su ko neexee mën a jël temps mais su nekkee app waa ngi waaj a jeex le premier ministre ngir yàlla war a sudan la ñaan nga dem assemblée def DPG bi et puis sénégalais yi xam fi nga xamante ne euh, foofu ngi leen daal di euh, daal di bëgg a yóbbee ak gouvernement bi nga xam ne moom la daal di jiite exactement xibaar bi moom laa doon nekk di vérifier sax parce que euh, il paraît que ñi nga xam ni ñoom ñi les services de l'urbanisme dañu arrêté les travaux de construction yu Farba Ngom mi nga xam ne ñoom ñoo nekk woon uh, foofu lee ci uh, Matam Matam uh, fi mu ne nii Farba nag xam naa ni moom yaakaar naa ni bu mu génnee ba léegi <laughs> xaw ma je sais pas dafa gàddaay xam nga mais les services de l' de l'urbanisme auraient arrêté les travaux de hmm. construction yi nga xam ni moom la Farba Ngom doon defar foofu lee nga xam ni moom <laughs> moom moo di ca ca Matam hmm. danañu ci ñëwaat en tout cas ci anam yu gën a yaatu mais aussi yu <laughs> yu gën a leer mais dañu jàpp kan yi rek euh, en tout cas. Hmm. Euh, instant bii nii euh, ñi nga xam ni ñoom ñooy yore service urbanisme yi en tout cas ñi ngi wax que ni dañu arrêté bu baax a baax yooyu le travaux ñu ñëw ba tey Jérôme Ndione ci li nga xam ne rek moom mooy point yi comme niñ ko doon waxee sànq rek. Hmm. kii leen ba Bassirou Diomaye Diakhar fay bi mu demee foofu la ci réew bu France ñibbisi na. Mhm. lan la indaale parce que nag ba mu demee daañu ne mayaale da may. le le français Emmanuel Macron li nga xam ne <laughs> moo di benn entretien. Euh, déjà balaa émission bi seen émission la ñun on fait juste canaliser 78 140 56 56 appel direct. wala appel WhatsApp moo leen di may ngeen mën a dugg daal di joxe seen xalaat ci li nga xamante ne moom la ñuy waxtaanee 78 140 56 56 fooy daana la mën a dugg nga daal di jàngatoon ak ñun li nga xam ne moom moo di actualité euh, wax nga ci lu am solo moo di visite le euh, visite du président Bassirou Diomaye Faye xam nga keroog maa maa ngi lay wax naan man gëmuma ne dinañ fa euh, wax wala waxante loo xamante ne sénégalais yu bari dinañ nga xam. Mm-hmm. ba léegi dañoo njort. dañoo njort ba léegi ñun dañoo njort parce que gis nañ fa ñoo xamante ni dañoo njort ne seen domaine. suñu gungeeg le président rek lii danañ ko fa danañ ko fa danañ ko fa waxtaanee mhm. ku ci mel le ministre des forces armées ñu ne dem la mais le ministre des forces armées Birame Diop le général Birame Diop demoon na le ministre des affaires étrangères itam demoon na donc wàllum diplomatie bien sûr saa yi su président di génn rek moom da koy da koy da koy da koy daal di gunge waaye man li ma ëppaloon li ma ëppaloon solo te jàppoon ne euh, waroon nañ ko faa waxtaan mais wàllum monnaie bi